murid ay ca murid ca murid ñoo nga ca liggéey ba gis ngeen jambaari Serigne saliwi ndaysan defar nañ toli bacc nañ ko jëri nañ ko bes nañ ko goñ mu rek mom mo ci dess melna na ni ñu ngi ci tay ji ci dimanche waaye ci waxtu wu tel mu melni liggey mom li dess bëreetut xam xamna bu nexé suñu borom inshallah allah ak 11h rek inshallah allah yépp daal di nopi inshallah allah ñu mëna a mbolo mi ci kat Allah ay jàmbaar dëgg ñoom ñoo fi nekk boo xoolee di gis ay soxna di gis ay góor yàlla di gis ay mag di gis ay ndaw ndeysaan li lii dafa sedd xol nga xam ne Serigne Saliou rek am lii euh, ndeysaan ku nekk ba woo fu nekk ñëw ngir Serigne Saliou loolu dafa neex barkeb Serigne Touba boo xoolee donga yi mag ñi ndaw ñi yëpp rek ci biir nga xam ne cofeel gi am ci Serigne Saliou saa bu ñu xëyee rek day gën a yokk day gën a màgg dañuy gën yëg Serigne Saliou loolu dafa neex. ñun amuñu su ma sañee nag may faatu doom moo jëkk am sëñ Saliou lay doon ndeysaan yàlla na suñu borom may la ko defal la njaboot gu barkeel barkeb Serigne Saliou sëy buñ takkee xel ko moom dal na xel tubarkàlla sëñ Mor murid yaa ngay gis ci sama ginnaaw ndeysaan ñu nekk ci liggéey bi ci añum ngooñ mi war ko yóbbu ca daara ya ñu mën a dellu ci yitte ndeysaan day mel ni boo xoolee foo teg sa bët rek ay nit ngay gis ngir nit ñu bari nekk ci liggéey bi nit ñu nekkoon ci yeneen tool yi sax te yeggal daw ñëw ngir xam ne fii la liggéey bi desee nga xam loolu tawfeexi sëriñ bi la kon ay ca murit ñoo ko fi bàyyi moo ñu fi bàyyi buy yeggee rek ñu daal di mën a dellu ca barab ya Mor mi ngi non noonu nga ko déggee walen gor góor murit ñu roñ gerté gi te roñ goñ mi te wajal ñibbi day melni lu am solo lool lañuy wax. di kay soñ ko mi ngi am mi ngi dox bu baax <laughs> murid ngi di wone seen bop bu baax ci liggey bi yalla na Serigne Saliou doon leena taxaw bu baax baax waaw Fall murid ay murit aywa yel leen ñu dem ñoko fi baye moñ fi baye barke Serigne ay ca ca kaw ca kanam sëñ Mor man ngaa doxantu gën ma djégé ñu wër naaf bi gisé ak murid yépp rek ci liggéey bi barkeb Serigne saliw mi ngi am solo bu baax waaw waaw len gor murid ñu roñ gerte gi ta roñ goñ mi lee kal ñibbi tubarkàlla <laughs> lu neex ngay dund fi xel kam bo fi ñëwee do yegg lu dul saliw saliw rek ngay yegg ndaysan ndax kenn du nang ko lako yobul yóbbul barkeb Touba kenn du wax na kenn du wax pënd na kenn du wax yaang may gañ ndaysan lool dafa neex lool saliw rek mom moko am dafa sedd xol barkeb Serigne Touba ñoo ngi awaan mbégte bu baax baax xam naa ñu dugg buñ gisé murit bu bëgg a yëkkati ci liggéey bi rek inshallah ñu dégg ko suñu micro ñu feeñal seen mbégte xamna bo ma jégé won ñu lay gis dina ci am solo ndax day melni man rek lañuy gis moo tax xam <laughs> doole day jeex jëf ca ba ndaw ñu jëfal Serigne Saliou. doole fi ci jeexantal bi nga deg murid li ñuy wax ñu aj ngooñ mi le te roñ gerte gi te wajal ñibbi doole lay jeex jëf ba ngay ndaw ñu bëggon ngay yëkkati sa kàddu rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk julini mbokk talibi ñu ngi leen nuyu baax te di leen xiar di ñaan suñu borom defal ñu jamm ak tawfiq ñun ñu bok ci ndaw yi nga xamé si ni Serigne Saliou mo ñaar fi ci Xelkom ñu sancion daara yi ñi wax ay ndookaak yoy bi sanc Xelkom fi lañu 1992 lan juga daaray ndoka ñu indi ñu fi ñu xel ko man bokk na ci ñi xel ko kon liggéey bi bu ñëwé ñun mbékté rek lañ ci am ñun nak amuñu amuñu amuñu fayuk Serigne Saliou Manam amuñu fayuk Serigne Saliou ndax li tax mom amuñu fayuk Serigne Saliou modi. euh daf ñoo yar ci euh, jang liggéey yaru ci lool lañu yar motax ñun maanaam bu ñu ñëwee bu ñu dellu see xel kom dañuy am mbégte ca it sëñ Tuubaa dafa waxoon lu am solo maanaam boo nekkee ci àdduna cam wóor na la àdduna day jeex ca àllaaxira du jeex jëfal loo xamee si ni dana boo demee ba foofu dootoo doo dootoo soxla pour ñëwaat fii ci àdduna dafa waxoon ci masaalik ne wa arxabul ashyaa li amwaat raddu ila dunya maal xayaati walaw suwayhatan faqat li yaxlamu saalihatan tan fo in xafaloo nee na maanaam ñi faatu sax boo leen laajoon luñ gën a bëgg danaan la dellu adduna doonte benn saala benn yiw wuñ fi jëfaat mu jariñ leen foofu dañ koy def xel kom nag dafa bindoo noo xam ne si ne amul murit amul tiijaan amul xaarit amul laay ñëpp a fiy ñëw ndax sopp Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne si nii mooy wayjuru Serigne Saliou mi sanc xel kom moo tax sëñ Tuubaa waxoon ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratullahi walan yahida sawaawu antama ilal jilaani aw intama li ahmadi tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum xataan allah sawaabi nee nañ ngir yi mu tudd nii Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Cheikh Ahmadou Tijaani dafa wax ne ñoom ñëpp koo ci jàpp maanaam mu yóbbu la ca pays suñu borom ba looloo tax maanaam Tijaan wala Murid wala Laayeen bu liggéey xel kom jotee dañuy am pas-pasu ñëw jëf ngir loo xam ni maanaam jëfi yàlla la ba na daal ñoo ngi soññu mbooloo mépp te di leen ñaanal di ñaan suñu borom defal ñu ndimbal defal ñu tawféex su fekkonte ne jataay bi lii la pare nu mu tuddati mën nañoo wax lu gën a yaatu lii waaye nag comme da ngeen jàll ci yeneen ak yooyu ñoo ngi sant euh, mboolem taalib yi képp ku fi teew rek ak yéen ñi nga xam ni yéen teew ngeen fi di jël euh, maanaam liggéey bi ak di ko wane di gën a xemem lu ndaw li ci liggéey Serigne Touba ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf sa الحمد Gracias. daaneel seen i a rek ci mbégteem liggéey a barkeb sëñ Tuubaa jërëjëfa sëriñ Saliou jërëjëfa a Saliou jërëjëfa sëriñ Saliou bëgg sëriñ Saliou yaakaar ko ñun waa kër sëriñ Mbacke Bousso ñoo ñëw fii si tool yi sëriñ Saliou fas yéene liggéeyal sëriñ Saliou ñu ànd seeg sunu jëwrin sëriñ Mamour Bousso moom sëriñ Mbacke Bousso waa xidmatu xaddim bee nag nekk di liggéeyal sëriñ Touba ak sëriñ Mbacke Bousso dem sa Touba di bale di sala dëkk bi sëriñ Mamour indi leen fi ñuy liggéeyal sëriñ bëgg ngërëmal sëriñ Saliou tasaare ko mboolem jullit di leen ñaanal yéen nga xam si ni waa télévision bi suñu borom kattan na leen ba mu doon ay télé télé ndax seen liggéey rafet na waa xidma bi nuyu na leen sant na leen gërëm na leen yàlla ngeen am ngërëmal sëriñ Saliou jërë ngeen jëf tubarkàlla Mor mbokkam ñoo ngi nii waa xidmatul xadim bu sëñ bu Buso ñoom ñoo nekk nii saan di soxna yi ak góor yàlla yi nga xam ni boo leen gisee xam ne ay jàmbaar lañ ki ñu tuddoo kuy caaxaan du ko tuddoo ki ñu àndal keneen du ko tudda waa xidmatul xadim ak sëñ Mbàkke Buso noo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di seef ci liggéey feex sëriñ bi bëggoon rek ngeen feeñal seen kàddu ci mbégteem liggéey bi ndax day mel ni ñu ngi ci jeexantal bi waaw jërëjëf mbokk mi siyaar na la bu baax a baax di siyaare sëñ Cheikh Sar bu baax a baax di ñaan suñu borom gën a wér ak këram gën a ko fanam yokk ñaan tamit kenn àndal sëñ Mame Mor Baye Fall Cheikh Mame sëñ sëñ Mame ñaan suñu borom gën a wér ay këram gën fanam di yokk ñaanal waa Xidmatul Xaadim bi yëpp rek góor a jigéen mag ak ndaw ay jàmbaar lañu góor ñi ay jàmbaar waaye soxna itam kenn des lépp rek maanaam jël nañ ko lépp rek ngir jëmmi sëñ Saliou Mbacke di di ñaan daal lu ci nangu mu gën a neex barkab sëñ Touba ñu teewe ko déwén te déwén seen lii yàlla na dem rafet na lépp rafet na kon nañu jox ci soxna kenn rek mu am ci kàddu yu yàlla kàddu yu mu mel ni kon seen seen YouTube Daahira Wakana Haqqan Facebook ñoom ñoo leen si woon ànd ceeg waa Lunaire TV day mel ni gis nañ taxawaay bég nañ ci bu baax yàlla na suñ borom nangu jëf ji te mbooloo mi suñ borom yokk ko ful ko li ngeen ci bëgg liggéeyal sëriñ Mbàkke Buso suñ borom defal leen lu kawe njortu sama yaay ñu ngi lay nuyu. ñu ngi nuyu bu baax a baax waa ñun waa Xidmatul Xadim bu suñ Mbàkke Buso nga xam ne Touba moom lañ def sax 15 jours bu ne ñu génn bale ñoo ñëw fii ci xel Xelkom ji góor ñi tamit di ay Baay Faal di góor yàlla yu jàmbaare lool di sant tamit suñu maam Mor bu baax a baax ndax moom mu ñu mën a taxaw ñu ànd ak mu mën a ñu liggéey Serigne Touba fii ñu ngi ko sant bu baax a baax di siyaare ñëpp nag ñaan rek ñu yàgg fii ñu ay ati ati at te kenn ku ne aajo bi nga faj fii yàlla bi nga ko faj yàlla na ko suñu borom fajal saafara la lépp saafara tawat yeeg jàngoro yeeg soxla yeeg yëpp ci bàkk Serigne Touba yàlla na ñëpp am jàmm ci bàkk Serigne Touba jërëjëf yàlla na ñëpp am jàmm barke Serigne Touba day mel ne suuf si moom attan na lépp ndax ni ma koy waxee rek ñu ko bay ñi ji gerte gi bay ko ba mu yegg si fii day mel ni mënoon nañ ko deqi naaf ko bàcc ko ba yóbbu ko te nit ñi duñ ko yëg waaye nag ndimbal loo xam ne sëriñ bi dañ ko bëggal moo waral biñ demee ba toll foofu mun leen taxaw leen comme barab bi ñaq jariñu la ñu woo ñëpp rek ku ñu mën a teew mu ñëw teew euh, feeñal fi sa ñaq ñun ñëpp ñu bokk fay. ndax ci ñew yëkëti ben ratu wala nga ñew forfi ben benn gerte ko ko jiwon ba liggéey ko ba toll fi yeen rek yeen a bokk kon mbo loolu yàlla nañ daje ngërëmal Serigne sallu ñoo ngi baax ci yeen di leen xiar baax di ñaan mbooloo mi borom gën ko yok baax jërë ngeen jëf barkeb Serigne Touba ñu wéy ci liggéey bi Serigne Mor kon wa ka ahlu xidma bu Serigne bu so ñom ñoo nekkon nonu xamna ba tay kon dañuy jall ci liggéey bi rek inshallah mouride yi ñoo ngi ni gis nga auto bi bo xolé day melni ñu ngi koy cooke ba ca kaw ko rek barke nga xamni li bu doon leneen lu dul sëñ Tuubaa la saan du am nga xam ni fañ nekk kawe na sori na waaye yëguñu fa lu dul sëñ fa lu dul sëñ Tuubaa yàlla na suñ borom doon leen a taxaw bu baax a baax a baax ba liñ ciy sàkku mooy ay dërëm ak i ngërëm suñ borom defal leen ko ndax ndeysaan woote gi sëñ Tuubaa rek am ndax bu nekkoon dañ leen di woo kaa ñu fay leen wala nangam nga am na ñoo xam ne lañ nekk duñ ko bàyyi di ñëw waaye buñ bàyyee seen i yitt ñi tëj seen i ñiy dëdd seeni barab liggéeykaay ñëw ngir liggéeyal sëriñ bi kon day mel ni xam nañ ni ñu bëgg te boo xoolee li fi ëpp ci tool yi ay ndaw rek lañ ñu xam ni ndaw ñi moom kon sëriñ bi rekk leen yitteel yal na sëriñ bi doon leen taxaw yal na sëriñ bi doon leen a faj bilal